الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع بسم الله الرحمن الرحيم بقي جناب نيو زيار لين nu ngi ñëw ci sunu émission yoomal jumaa nag euh, ñëw fii ci cité euh, euh, maam Seydi Aji Malick fii ci Wakaam jàkkaarloog monument bi jumaa ji ngeen jàkkaarloo ñu war fee dugg xaar imam bi agsi dañ koy ubbi tey jumaa ji nag njaboot Serigne Abbas Sall ñoo ko def mu war a tolloog ñaari téeméeri jumaa yu ñu defar ak ñaar fukk ak benn muy 221 di da di dajeeg indicatif u Sénégal. yàlla na yàlla defal leen ci ndam lu weesu seen njortu loolu waaye nag ci taxawaay yoo xam ngeen ni e, ki war a teewee si bis bi tey jógee ba Dubaay muy soxna Alimatu e, mi nga xam ni e, Sall moom Serigne Abbas nga xam ni yitte ji yëpp ca loxoom lay bàyyi ko di jóg di ñëw fii di tegu ci loxool sëñ Abdou Fatah moom Serigne Abbas. ànd ak Serigne Serif Sall ndax mooy joxe caabi ji waaye sëñ bu Busri sàll mooy jiite jumaa ji Ibou Cissé dañuy dugg rek ci biir jumaa ji xaar imam ñëw ñu déglu xutba bi déglu bayaan yi àndandoo ñoom taataan li fi bàyyi ko jottali leen ko incha allah ak seen xarit Alxaaj Njaga Sekk Thank Thank you. وأطعم الطعام وأدام الصيام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس نيام وجعل الكلمة الطيبة حياة للقلوب وشفاء ونجاة من الآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصل قائلها إلى بلوغ المرام وتدخله الجنة بسلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي وأفضل رسول اصطفاه وبعثه إلى جميع الأنام وصلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الكرام وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليك عليكم رقيبا أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وأحثكم وأحث نفسي على طاعته وأنهاكم وأنهى نفسي عن معصيته فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيبوا كلامكم فإن إطابة الكلام سبب من أسباب دخول الجنة فإن فإن الكلمة الطيبة هداية من الله عز وجل لعباده وفضله عليهم لهذا قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد قال الطبري في تفسير الآية وهداهم ربهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقال ابن زيدون في تفسير الآية وهدوا إلى الطيب من القول أي هدوا إلى إلى الكلم الطيب لا إله إلا الله subhaanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim ayyuha al-muslimun فالكلمة الطيبة حياة للقلوب ورسالة المرسلين وسمة المؤمنين ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قوم إلا بالكلمة الطيبة قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر المؤمنين بالقول الحسن فقال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا معنى ذلك قل يا محمد لعبادي المؤمنين فأن يقولوا في تحاورهم وتخاطبهم أن يقولوا الكلمة الطيبة الحسنة في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول ما أسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah sayyidul muttaqin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم صل وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد المتقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا بما امرك الله به من الكلم الطيب الذي يرفع إلى الله عز وجل الذي يرفع إلى الله عز وجل وبه نجاة من النار عن علي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار ثم ثم أعرض عنه وأشاح فقالوا اتقوا النار ثم أعرض وأشاح قال علي حتى ظننا أنه كان عليه wa salla alayhi malaikatuhu fa qaal inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yaqulu annabiyu alayhi salatu wassalam akthiru alayya min alsalati yowma aljumuca fa innahu man salla alayya salatan salla allahu alayhi biha ashra allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain warda allahuma an al-arba'ati al-khulafa al-a'immati al-hunafa abi bakrin as-siddiq wa umar al-faruq wa dhi an-nurayn uthman wa abi as-sibtayn ali wa an baqiyati ashabi nabiyyika ajmain allahumma ighfir lil-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka hamidun mujibu da'awat اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظ هذه البلاد وأمنها وأمانها واستقرارها واتحادها وتآلفها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله kay الله أكبر الحمد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 ci wakaam fi la ñu nekk jàkkaarloog monument bi xam ngeen ni ONG alxayriya bii nga xam ni mooy ànd ak émission yomal juma jamono yu nekk sponsorisé ko dañuy taamu saabu buy ubbi juma rek ñu ñëw ànd ak moom ci loolu tey nag ñu ànd ko ak sëriñ bi sëriñ Serif Sall moom sëriñ Abbas ak ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Fatah Sall ba nag xam ngeen ni kilifa ga soxna Alimatu ñëwaale na ànd ak mbooloo mu takku jóge ba Dubaay moom itam moo waral sunu kilifa it imaam daam Ndiaye nekk nii ci sunu wet di taxawu ci lu baree bari ndax lii moom wax naa ko ni bëre la woon waaye yaa ko daan ndax li nga ci bëggoon lépp sans borom defal na la ci lu lu lu méngoog loola. Euh, tabarakallahu ñu toog ak imaam Ismaïla Diagne mi nga xam ne moom mooy euh, imaam ratib bi xam naa du nu sori commission jumaa ji ñoo ngi fi ñoom itam. ñu jox imaam mu présenté mag ñi présenté nu jumaa ji ak taxawaay bi ak lu nan lañ ko fi defee ak jamono ban laak euh, sotti gi su ko defee nag ñu jox commission jumaa ji jox waa alxayri yi ñoom itam seen i kàddu ñu daal di ñaan rek tàggoo ba àjjuma ak jàmm incha allah aousubillahi min asheytan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmani irahim malik yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم صلاة تعرفنا بها إياه وتجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته am naa kàddu cant lay doon di wax alhamdulilahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat waaw tàmbali nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim ñu ngi koy jeexal ci alhamdulilahi rabil alamin di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa suñu limee dañ dul matal doo juum waaye dañu dañu dañuy bañ a matal bu ko defee daal képp koo xam ne participer na de près ou de loin ci mbir mi ñu ngi lay sant di la gërëm ah historique bi nag dina yàgg di ko fi lim liñ ci waroon wax yëpp wax nañ ko ci ouverture bi li ci am solo rek mooy message bi nga xam ne xutba bi joxe na ko mooy xuulu li naasi xusnan xuulu li naasi xusnan maanaam bo booy wax na na yiw génn sa gémmiñ seytaane nag wax naa ko sànq bi may ubbi ndax dafa xatoon dañ doon dañ doon bañ julli ji dab ñu seytaane a chaque fois yonent bi sala salaam dafa wax ne yajri fil insaan majra dam ni ni sa deret di doxee say veen noonu lay doxee say veen ba boo nekkee ci majlisu ilm wala majlisu ibaada day bëgg nga gaaw jóg dem defi leneen dina ko def sa xel dina ko def sa xol boo moytuwul sax nga ciipatu kiy wax boo moytul nga mere ko na gaaw joxe micro bi te wax naa ko sànq di nga def quatre-vingt-dix minutes ci ci football def def une heure de temps ci bolot ku jóg keneen toog defaat ko ci damier te du la yàqal dara bon loolu nañ ko dàq d'abord dañ koy def ci kaamil di yàkkamti dañ koy def ci waxtaan di yàkkamti dañu nekk war a joxe message dañu war a joxe la bon exemple ba loolu daal ñu koy bàyyi xel message boobu laa doon lancé du ma wax dara suñu xol sedd na ci ONG Al ci li ñu def on a projet projets avec eux lii asalaamualeykum bi la dañu bëgg comme li ma waxoon suñu sërif bi ndax dafa am loo xam ne mënuñu ko woon wax sànq ngir bàkkale ko ñii du ñu ay nitu kase-kase lu tax du ñu ay nitu kase-kase sëriñ Abbas dafa am wiraasa laduniya am wiraasa mawhubiya am wiraasa muktasab ñetti yi la boole loo xam ne daf ko sàkkul boppam loo xam ne yàlla moo ko defal te tàgguwu ca kenn loolu dafa jar bàyyi xel mu am fu mu tënku nag ñii maanaam féete foo xam ne en dehors tabax sax dafa am leneen lu ñu seq ci wàllu moom mii def ko wax sànq bi mu koy wax sama rongoñ da doon waaj a tuuru ci al arwaaxu junuudu mujannada fa maa taarafa minha italaf wa maa tanaakara minha ixtalaf sama sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si di wax ne les âmes honnêtes ne se cherchent pas mais elles se retrouvent liggéey bi biñ ko démarré rek léegi tawfiq ilaahi bi yàlla def ci Mouhamadul Fatah lu fi sotti moom la du ko soloo du ko waxoo nelawul yendalul fanaanul lekkul loolu nag bu ngeen ñëwee yéen ay mbokkam laaj nañu jël benn deux minutes sax def temps d'arrêt loolu ñu seede ko ci moom xam naa du ko wax bugg ko allahuma laa addo wax naa ne sànq sëñ Abbas lii dafa bokk ci tàmbali liggéeyam ndax waa Màkka dañ doon wax ne aminu ñaanu maam Ibrahim la yàlla nangu ci ñoom bu Seydina Muhammad ñëwagul waaye ku xam soxna yi mu denc ah daana daanañu jaamu yàlla ci lim ci salaatul faatix duma ko tudd bëriwul nitu yàlla bu góor bu koy def ma ne ku xam soxna yi mu denc li may wax xam ngeen ko bëri na lim yu ñu daan def ci salaatul faatixa bëri na ay nitu yàlla yu góor yoo xam ne da mënuñu koo def c'est la partie visible de l'iceberg wa min siddati zuhuri xafaaw ah wa min siddati zuhuri xafaax ñoom nag bugguñu ko lii bugguñu ko fu am coow duñ fa dugg lu am wax seen yoon newuñu ci demuñu ci tele wootew ñu taalibe wootew ñu dara loolu moo ma booleeg ñoom te ci kàttanu yàlla ba ci kanamu abul abbas du deñ ba ci kanamu rasulullahi du deñ nafsatul masdur na nag li ñu bëggoon wax yëpp duñ ko mën a wax dañ koy tënk foofu li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko sànq ñu ngi sant di gërëm mbokk yeeg dëkkaale yeeg am di jàmm yeeg imaam yeeg même chrétiens yi fi dëkk sax ñu ngi leen di sant. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant yàlla cant goo xam ne am na ak tàmbale waaye amul ak yam di julli Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di wax salaatu wasalaam yàlla na nekk ci moom axi saabam axi njabootam ba ilaa yawmi diin ñuy sant nag cant goo xam ne am na ak tàmbali waaye amul ak yam di sant Chérif ak njabootu gi nga xam ne moom la àndal gi yëpp ak xalifa ba nga xam ne moom la bàyyi ca kër ga mooy li imaam wax rek nit bu la defalee teraanga fa amma bi nihmati rabbika fa haddis bu defalee teraanga na nga ko gërëm sant ka ci kanamu mbooloo mi soo dee gor soo ko santu ci kanamu mbooloo mi kon yow ma doo gor kon Chérif ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox sa wàccuwaay martaba bu sa waajur amoon yàlla sa borom ba def nga am ko ba raw ko si barkeb Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñi nga àndal ñëpp njaboot gi yëpp ñu ne sant cant goo xam ne am na ak tàmbali waaye amul ak yem kon li ci imaam wax duñ ci jaaraat waaye ñuy sant yàlla bu baax ci li nga xam ne tamit moom mooy mag ñi nga xam ne moom lañ àndal ci jumaa ji wax dëgg yàlla ñoo xam ne ñu ñu jàppale ñu la ñu ñu yiir lañ ci biir ak ci biti su ma yeex mag ñi rek su ma si limee ñaar wala ñett rek dañuy yóbbaale ñëpp Pa Seck mu nga nele suñu tonton mbay Ndiaye ax suñu tonton Bari kon dañuy yóbbaale ñëpp ak suñu goro imam drame kon dañuy yóbbaale ñëpp ñeen sant di leen gërëm ndax kat ñoom suñuy conseil lañ ci biir lañ ax ci biti kon nag li nga xam ne lépp lu ñuy def si jumaa ji ñoom dañu ci xelal dañu ci yedda dañu ci yee kon ñooy di gërëm di leen sant gërëm goo xam ne am na ak tàmbali waaye amul ak yam lii nag maanaam ndamu islaam la. Euh, kàddu gi du mën a sori nag xaj na dama nekk jaamu jàkk ji ñu ne ne yaay jiite commité de gestion ma tuddee ko jaamu jàkk ji bañ a tudd leneen lu ñuy wax ndaxte defe naa ne ci jaamu rek la mun a yem donc ñii ma jiital nag dama leen di delluwaat kàddu rek di leen gërëm àndanduwaat daal di ko fedd li la ma waxoon ci biti. muy ne bu ñuy wax famille maam Abbas du ma ci mën a sori lu bari ndax bu ma waxee dinaa wax lu nga xamante ne xawma ndax dinaa mën a contrôler sam bopp lii ma ci boole mooy Abdou Fata koo xamanteel ñaar fukki at ngeen nekk defe naa ne du ñaar du benn fan moo tax du ma ci mën a wax lu bëri lu dul di leen wax jërëjëf di ko joxaat nag rendez-vous comme man maay jaamu jumaa ji rendez-vous bi ma koy joxaat yëpp mooy yeneen projet yi ñuy sumb rek di wax ne bu ñu paree ci ba joxe nañ caabi yi rek ginnaaw suba ñu commencé waat leneen li incha allahu rabbi pour mën a nag may waa maire yu beex euh, kii ko représenté donc ñu mën a wax man du ma guddal jërë ngeen jëf yéen ci bisu tey bi yàlla nañ yàlla nangul ajjuma ji yàlla nañ yàlla nangul julli gi yàlla nañ yàlla nangul ñaan yi di bëgg lool ndax liggéey bu mel ni ku ko séq ay julit mu dem ba àgg fii war ngaa sant yàlla baax a baax xam naa ne am ngeen chance waaye waa ONG Al Khayriya itam am nañu change ndax su fekkee yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne ku tabaxal yàlla néeg bu toll ni tàggu picc moom dana la tabaxal pale ñoom ñu tabax ñaari téeméeri juma ak ñaar fukk ak benn yooyu pale ñëpp xaj nañ ci incha allah ñun ñëpp waxuma waxuma <laughs> njabootam gi waaye ñun ñi leen xam wala ñu dégg siñ Abba sax ñun ñëpp xaj nañ ci pale yooyu yàlla bu ñu ump yàlla nañ ko muurloo ah, Fataax jërëjëf liggéey bi rafet na te booloo ko wax vraiment euh, loolu man comportement bu ma bu ma bu ma bu ma marqué la waaw macha allah euh, allahuma la adur yàlla yàlla jëm kanam euh, lépp lu yàlla defaloon tawfiq ndam sëñ Moustapha ñi la ci mag jiitu la ci yàlla la ci defal lu toll noonu wala mu ëpp ko waaw ci barke yonent bi incha allah ndono la mu ngeen séq def na ci waru garam jóge fi say mag sant la nga taxawee place am eh, yàlla na nga ko yàlla na na yàlla nga ci am ndam jërëjëf jërëjëf Sall jërëjëf Cherif jërëjëf Cherif eh, njaboot am ko gunge ko lu baax a baax la li ngeen def am na solo ndax da leen di ñemeloo jërëjëf jërëjëf Sall maa ngi nuyu docteur sëñ Mouhamed Mansour bu baax a baax di ko ziara man de rëccu ma li ma leen xame woon sëñ Moustapha nag moom moom beneen affaire wax naa ko soxna Halima dem dama dama koy wax na xam naa sax dana ci am ñu ma mere mais mais garaawul damaa nekk Louga dafa ñaari at yàlla xéewale ma may sëñ ab sama sama xarit sama soppe Cheikh Tidiane Gaye bi ma génnee école normale supérieure mu xam ne mën naa jàngale mat te booba xanafiya di door ubbi mu bëgg ku fa jàngale matière scientifique yi mu demandé ministère ñu affecté ma ci inspection académique bu Louga su ko dee ñu man maa abale école bi ñu abale ma fa ñaari at ma nekk fa ñaari at yi neex lool la ma fa gën a marqué mooy jour bi ma bi école tëjee mois de juillet defe naa vingt la 20 juillet keroog la bët sëb Sénégal keroog maag Maulana Cheikh Abbas ñoo bokk oto ak Cheikh Tidiane Gaye ba ak Dakar jataay boobu moo ma gën a marqué ci moom moo wax ne ñaari at yoo fa dem yëpp kenn dong moo ci xam sama kër ci doomu Sëñ Abbas mooy Moustapha Sall loolu nag moo tax mu saf ma ban <laughs> rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di wax ne ñun nag xëy na dañ fi ñëw ci ay casquettes yu xaw a bari benn mooy dañu nekk conseil municipal nekk président commission affaires religieuses et sociales bu mairie bi ànd ak directeur cabinet maire mu Souleymane Diagne nekk ci ginaaw ñëw teewal fi maire waaye ñëwaat teewal sama bopp ndax a ah, di mu xaddamu Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour nekk ci daal tijaani yi di si yëngu kon mu ñëwaat teewal sama bopp jëm ji toog di Ablaye njaay bokk ci de gestion bi ñëpp xam ne mooy président daayatul axyaar moo tey mbooloo mi ñu fi gis si biti lu ci ëpp mbooloo daayira ndax jëmm yi ñaari jëmm yi lañuy yëngu ci biir fii lislaam di ko yëngu ci tarixa yi tarixa yi laa wax gëm ni am ñu koy yëngu fii ci ci ci Wakaam foo gis imaam muy dem rek ci mbiru di mu mu lay dem moo tax bi mu waxtaan ak yéen ba xam ne war a taxawal lii ñetti kilifa Wakaam yëpp ànd nañ fi maag moom dem seeti def une délégation pour lan ngeen ñëw liggéey ci jàmm ba li sotti da ñoom jàmm rek moo lay yëkkati si lañ ànd dem nañ seet imam ratib imam Babacar Diagne dem nañ këram moom déplacé wu na ñëw ne fii ci jumaa ji toog fii ñu def fi réunion ginnaaw loolu seeti nañ jaraaf Youssou Ndoye keroog ba mu def ba ñu demee dafa ne man ànd naa ak yow imam ndax imam yi ma àndalul mooy yi nga xam ne bu ñu taree Fatiha tari fallaxe duñ ci boole naas te fallaxe naas ay mag a rakk lañ keroog wax ñu dem ñuy ree mu ne yow ànd naa ak yow ndax yow boo taree Fatiha a rakk ne ànd naa ci parce que li ngeen def yëfu diine la ñu ëlbatiku dem ci la maire ñaata yoon ngeen def réunion ci bureau maire xam nga dañuy wax jumaa ji rek parce que moo ñu sauver fii sauver ñu fële mais assainissement bi sax comité de gestion moo moo ko desoon ak ak maire. Eh, ndax sunu doomu baay imaam daam li wax rafet na waaye li ma ci gën a kontaan imaam li nga xam ne mooy imaamu jumaa ji dafa wax loo xam ne bu ko waxuloon du ma ko tudd. ndax keroog bi ñu bi ma ñëwee di ñaan si fii ñaari soxna ci la ma déey problème mu jàkka ji bu ko waxuloon du ma ko tudd ma ne ko am nga <clears throat> chance ndax ki ma àndal Cheikh Abdou Fattah sama rakk bi moo yore loolu te lu ma ko wax dana ko def ci laa ko ko wax ngeen waxtaan moo tax fu mu toll rek dafa ma a naa ah, sa jumaa jàngay avancé toll na fii ma ne ko li ma gën ci sawar ma ne ko imaam ba fa ne borom xam-xam ma ne ko bare na jàkka yoo xam ne da nga koy ubbi waaye imaam yi ñu fay teg du ñu demee noonu ma ne nag bii yàlla daf ko may xam-xam bu rafet